teg naa ci sama bët bu wér maa ngi leen di nuyu nag te di leen xamal ne Serigne Touba mi leen àndal lay du ma du ma leen wax fii mukk ne man abdullah nee naa Serigne Touba nee rek laa leen fi wax Serigne Touba nag dana am lu ma leen wax loo xam ne moo ko wax nee na ku ma defal la nga man danaa la defal loo mënut ku ma defal loo mënut danaa la defal loo la jomb te loolu yéen ñi ñëpp na leen xam ngeen ko ci lu wér kon nag nan sant yàlla bi nu yàlla booleeg moom sëyintu Tuubaa nee na di leen góor góorgóorlu ci jant bu fenk ci di def lu baax ak di ko wax ak di daw lu bon ndax ngeen raw ko ndax kat démb moom tëggatula ko ëllëg tëggagula ko tey rek la war fas yéene jant bu ne ngeen sàmm jant ba rafetal ko ma leeral leen ne say Tuubaa nee na moom da yurul ab tariixa li mu def daal mooy yoon wi yonent bi awoon ànd ak saaba ya dafa dikk fekk mu farata yi mu ko jëgg jiba bay ñax ma buñ ko ba mu set wecc woote ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi wax na ne wax na ne nii ma nii ma ko waxee ne wax na ne képp koo xam def ko def ko nii misaaba yi defoon yonent bi day mooy li jafe waaye li ko wóor ci ngi daal mooy ku ko def saaba yi defoon yonent bi mu defal la li yonent bi defaloon saaba yi kon nag noo koy jébbalaat suñu bopp noo koy dénkaat sunu bopp noo koy jox suñu lépp bu nu saaba yi ëppee doole itam wala ñu ëpp ak man itam bu ñu lu ëpp yéen yi loolu mën naan ko def gannaaw bu loolu wéyee nag ma yëgal leen ni yàlla mooy buur bi nga xam ne ku ne moo la ma di dimbali allahu la si joo ci alxuraan la ca topp doomu aadama bindeef sax mënu ko waxu la si joo ci alxuraan la ca topp ku dul yàlla mënu ko kon nag ginnaaw moom moo yor xuddalatu moo yor iraadatu coobare kàttan moo ko yor te ci lay jëfandikoo yërmaane yi ndimbal mu yor ko te mu wóor leen cëng ne fab na yërmaane mag ndimbalam jox leen ko ren sant leen ko cant gu wér yàlla nag ni ko dee si sant du doon rek gërëm naa yàlla jëf jëf lay doon tey waajalee liggéey bii nga xam ne ngeen ko yàlla far leen ba liggéey bi demee noo xam ne séenu wu leen ko woon ak yàlla ji di leen ko te li ngeen sàmm ko jariñoo ko bañ koo yàq bu ngeen ko defee ndimbale yàlla danañ di gën a yomb waaye ma di la yëgal ni leen yàlla kat moom lu yàgg-yàgg boo xamante ne yàqoo ci dese noppi na ci ndax dafa wax ne walaw basata llahu risqa li ci bàyyi ji la ba xaw donte dafa tasaare wala sëñ bi ci suuf si bind